Seex Mustafa santal dayob cant yaa fi gën amul ku lay werante te ka ngaayoo ci Mustafa Seex fi gën amul ku lay werante te ka ngaayoo ci Mustafa tëddal nelaw yaa Mustafa ñépp mokk nañ